Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. rahmatullah wa te day ñoo déglu man la seen mbokk isa Bokar si dafa am ben na programme buñ door mu tudda di message te itam jot naa ci sànni ay kàddu jaarale ko ci WhatsApp Wainak nak lima fi indi wat modi ñu layan biir bir wecho ci kaw loo xam nañ koy waxé rek modi di waxante déggate tax ci kaw teranga ci kaw itam yar yaru nak ak teranga tam taxut né nga malé malé lo xamné ne du njub ñu nan da nga wara yaru dédé loolu du yar ah, li nga xamné nak nag moo ñu tax a jóg mooy ci bit jot na nak ñomit ñuy sanni karta local government election ak presidential election jot na ñuy sànni karta ne ñun ci biir Gambie fii da ngay gis Guinée Bissau Guinée Conakry Sierra Leone Nigeria ak yeneen dëkk Amérique ak yeneen dëkka seen juddu réew di sànni karta ci biir Gambie dañ koy gis léegi nag ñun ñu ngi toog ñu ngi woy democrasi démocratie waaye woyi démocratie bi nag matut dañ ko war a woyaat ne nag duñ mën a eewu fii di ooyee suñ boppa ne suñ démocratie sax moo gën a baax bu Amérique te fekk na juddu réew yi Gambie yi ci bitim réew duñuy sànni karta kon loolu loolu wax ba desandi na am na lu ca des kon woy bi jeexut woy bi neex na waaye dañ ko war a woyaat ok léegi nag am na ñu jox tem taxaw bu soobee yàlla dañ daan wax ne sànni karta bi du mun am ne xëj na xaalis bi mooy tax munuñ koy am loolu am nañu gambiyeen gambiyeen yoo xam ne yàlla may na leen xam-xam bi am nañ xereñta bi ñooñu mun nañu lijjantil réew xaalis waxuma laa nag luy tax nga sànni karta li nga xam ne moo di National Democratic Institute am na ñu koy dox te dinañ fa dem bu soobee yàlla li nga xam ne moo di Carter Center ca Atlanta am na ñu koy dox te dinañ fa dem bu soobee yàlla li nga xam ne moo di state department foofu ta Washington it dinañ am na ñu koy dox te dinañ fa dem bu soobee yàlla loolu caravane lay doon. lii na du nekk tey ëllëg gannaaw ëllëg mun naa nekk fii ba at sax dañ koy dox bu soobee yàlla dina am ñu dem ay Bremen Germany ak yeneen dëkk soo gisee may tudda Bremen waxtu bu nekk Germany dafa am ñu ñu fa toogal am na ñuy dem Sweden am na ñuy dem fi nga xam ne moo di Norway am na ñuy dem France damay lim ni rek ku ma ci di taxut duñ fa ñëw. ak tam United Kingdom ak dëkk yu mel ni Angola lu nga xam ne Gambien yi bari nañ fa li leen fay yóbbu mooy gindandikoo nit ñi yokkaleen xel ba pare itam bu fekkee ne fii mënuñooy indi xaalis buy tax nit ni woote bo boobaa nit ñi jég bitim réew teg xaalis booba fayal institution boobu ni nga xam ne ñu ngay dem ku ci ne cib Amérique jaratul air ticket Amérique fu la fu la neex dem ñu yóbbu la ci oto sànni karta bi ñu def ko te itam Gambien yi ci biti dañ war a am National Assembly eh, member boo xam ne Gambien indi diaspora la yaa xam dañ la sànnil karta wala dañ la nominate ñu sax bi ñuy gënal moo ñu sànnil la karta nga ñëw nga toog ne itam kuy toogal mbiri Gambien yi ci biti warula nekk koo xam ne yow dañ la jël liggéey bind sa tur ci kayit déedéet ne ki nga xam ne dañ ko sànnil karta mooy indépendant kooku mooy mën a wax luy njëriñ nit ñi te moo koy mën a xeex jaarale ko ci démocratie waaye yow soo welbate ko te dañ la jël liggéey nguur gee la jël liggéey soo moytuwul doo mën a xeexle Gambien ni lañ war lañ leen war a xeexle te itam loolu noonu dañ ko war a leeral Gambia ci piti yena bok ak ñun so len tukki ñu terangal len ku ci am soxla political party bu ci taxaw wori dem ñu jox la nga ñew tok su dara xewé ci réew mi di yónni ay xaalis di def lu nekk waye nak su sandi carte jotee yeen bokku len dedet lolu du lu ñuy wara woyé ñu ngey woy nak démocratie at yépp démocratie gambia bi baxna démocratie Gambia bi moo gën sax bu Amérique nangam nangam loolu yëpp ma leen di dégg loolu man Issa ma ne loolu amut déedéet gënut ko parce que Amérique ak Sénégal ak yeneen dëkka seen nit ni seen réew yi dañooy sànni karta bitim réew waaye réew moo xam ne ba léegi sa nit ni sànni karta bitim réew yow mënulaa oote ne nag sa démocratie mut na sekk déedéet am na lu ca desandi loolu nag dañ ci war a taxaw def ko mu correct loolu du ànd lu ànd ak luwa la loolu rayti nit ñi la te dañ war di sànni karta te dañ war a am seen représentative su ko jaree sax ñu am seen présidentiel candidate su wiinee ca diaspora wiin ca biir Gambia lu koy tere toog ca state house ba parce que nit ñi ñoo lay tànn teg la fa loolu mooy dëgg yàlla na ñu yàlla defal jàmm jërë ngeen jëf.